Jump présente le combat de choc. du ma xalaat benn góor de góor gu taxaw sama kanam xalaat naa ne bu ma la jàppee lamb ji jeex. maa ngi moom dañoo war a jëflante li ma ko waxoon laa koy waxaat. yoonu nu jëflante de. leen laay xalaat quoi. ma ñëw samp ji xaat mu am nu mu demee ci côté mais nag suul ay tànkam rek ndenge yaram bi ñemee jam-jam yi. incha allah euh, lu mu indi dama koy bàyyi wax ji rek comme lu mu wax nee na dañuy jëflante ma ak moom. nee na xeex dinañ bëri bal bi mu ngi ci ay camp. xalaatam la wax rek waaye man bu ma ñëwee moom du puus du paas. Zambala doo def dara. dernier combat maak Mamady Diagne dama ko dóor mu daanu te booy fay bëgguma ko dóor mu daanu dama fas yéene bëre ak moom. bagaaree dootu ko defati ba ilaa yow mi diini. bisimilah tapet nga ragal nga barki Rasulullah tapet nga amoo fit barki maam Thierno Birahim Mbacke dama lay lekk yow ma suur sama ndey ji ma ci réew bu ñu wéetalee maa ma def la comme pentat. ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy suivre ah à divers à travers les différentes chaînes wala à travers les différentes plateformes rek tey nag ñu ngi fii si arène nationale am nag bu am solo bu ñu fi dajale muy koy waxee rek ne na ay mag am na ay ndaw am na ay boromi kër boromi famille ñoo xamante ni te yaakaar naa ne dañ jëlaat seen temps seen lépp au retour tey joxaat ko làmb tey ñëwaat si beneen facette nekkul rek taxawaay taxawaay amateur waaye tamit taxawaay taxawaay promoteur tëgg làmb boo xamante ni tey ni ma ko waxee rek man moom personnellement combat bu yaakaar naa ne maa ko gënoon bëgg waaye seen amateur si seen liggéey si seen xarante ñu jaayante ba tëgg combat bu toll nii combat bi war dox si diggante ki nga xamante ni tey moo di fils de Sadio ñi naan ko Boy Sadio waaw Boy Sadio sax yaakaar naa moom la gars yi gën a xam ak ki nga xamante ni rek moo di Batista numéro 2 waaye avant dara ah, dañuy dalal euh, Boy Sadio ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan Boy Sadio ñu ngi lay ziar waaw auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim <coughs> tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah ñu dolli santaate yàlla rek di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu papa yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana di ñaanal sama papa bu baax yàlla yërëm ko te xaare ko ajana di nuyu caméraman yëpp di ñaanal sama yaay yàlla guddal fanam sama yaay sama xol yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla bàyyi ko fi ndax lépp moom la waaw di nuyu sama adversaire mhm. di nuyu sama waa dëkk nag waa saajo waa Jolof yëpp waa Taïf waa Bayla waa Gassane waa Thiel xam nga di nuyu sama maire yi sama group maire yi Casa Saint yi maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Diamaguène Fass Mbao waa Timlora Mafia ku koy doxay bi xam kafe waa kafe ga waa Talimam Diarra waa Thiaw Saxiir xam nga di nuyu sama waa écurie nag waa écurie Lamsar di nuyu waa marché caaro yi sama grand xaarim Thiaw business di nuyu waa Colobane di nuyu Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu waa SMS boutique di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp àq nag di baal ñëpp àq. di baal ñëpp àq di nuyu nag mhm. les jeunes amateur mhm. léegi nag les parents amateurs lañ doonatuñu ay jeunes amateurs. <laughs> les parents amateurs. parce que buñ les rek. waaw les parents amateurs. parce que boo xoolee tey jii nii ñoom buñ demee ba def lii nii rek. Mhm, doonatuñu ay jeunes. ay parents lañ. ñu ngi béy seen noonu la demee xale xamul dara. bu demee bay def rek. di jëngu di def rek. xamal ne mu ngi commencé xam dara. Ah, kon yàlla leen yàlla jàppale waa Génération. am na solo combat bi. di nuyu sama mag yi ci biir yëpp ñoom grand ma Seck père Khadim. Mhm. Gora Ndoye président bi. Mhm. xam nga di nuyu Modou Baye Fall Mas Koki. xam nga mhm. Mor Mor Diouf. waa jeune amateur yëpp bàyyiwuma kenn. combat que yomboon na pour mu waaw combat bi yombul. parce que du woon moom. ok du woon moom. yaa dafa mel yéen ñaar da ngeen di xaw a ku nekk day xaw a bële rek waaye au fond xam nga ne Batista champion la. non bañalu ma ko ndax dañoo bëre terrain gaal gi mu daan ma yàggul dara. même pas une semaine. waaw loolu kon champion nangul naa est que du mer boobu nga fanaanoo moo tax nga jël combat bi kon. man du ma mer ci làmb ku bëre neuf combat jël lu ne ci àll bi mm-hmm. kooku du mer ci làmb man du ma mer. du ci làmb. làmb làmb la. tontu du forox baa ñu jël Batista mu nuyoo ba pare. door la tontu ci loolu noonu Batista jaar nañ la. waaw maa ngi waaw du nuyu ñu fi teew ñëpp waaw di sant waa Ibsa di sant waa Dakar ga rawatina waa Kaolack bu ma dëkk di sant waa Pikine fi bu baax di sant suma waa Ikili di sant suma président Malick Ngingue di sant moo korsu jël nuyoo bi di ko teg si loxo on lofu waaw mu jaay loxo ci kii yëpp di sand ñëpp daal képp kuy bëgg bari saa di sant waa Ibsa bu baax waaw di sant sama groupe bi su mel ne ñoom Galaay ñoom Lat Bundu Pikine waaw ñoom Zez Xaadim Samb waa Dakar ñëpp maa leen ziar waaw ak Maxi

man instant yi nag gars yi ñëw ma bëri sama borom yi nii nii ba sa kanam ma doog a yëg soxla ma yëg sax waaw bu ma leen jeexalee ñëpp bañ pare après garaawul dégg nga nekk li wax nee na da nga ko daanoon teere gaal gi yat bi nag xam naa ne moom faaw nga aal si si ni mu waxee non fàtte naa loolu loolu mbapat la mbapat ak arène du benn sax mm. waaw daanu ma ko nee na ma ko daan man daanu ma ko loolu du làmb pare naa foofu mm. combat bi ndax yomboon na sa côté pour mu taxaw waaw combat bi yomboon man dama ko ne laaj ko bu dee bëgg na rek man bëgg na man du ma delloo avance bu gaay na rek mhm. a mhm. ñoo gën a metti kii foofu ku xamul bari saa nag ay combat dina diis moom mais bor bi ne prib kii du ma moromam sax wallaahi azim mhm. voilà nee na doo moromam doo moromam sa waay jox naa cër bu baax a baax a baax mais bu combat taxee combat la waaw parce que moom xam muy def nii boo ko bàyyee ak wax ji moom na wax ba Tamba. foo teg moom xam na ko. Mm-hmm. Baye Babacar ma bàyyi la nga nga posé ko question. ayca yi nga nee du sa morom. non loolu waxi mbër la rek. Mm-hmm. ndax signature ak wax a ànd. ku bëri neuf combats def huit victoire. Mm-hmm. infra rouge kese daan la si làmb. kon kooku nekkul na day wax rek. loolu ay wax mayewu ko. kii xamante nañ bu baax. man bi ma koy fekk Kaolack muy bëre. may topp ci ginnaaw Double Tyson boobu man xale laa est que dégg nga bu baax li ma lay wax. Mm-hmm. kon su taxawee fii naan booy saajo day wax rek. loolu ay waxi kasaw kasaw la rek. Mm-hmm. ni ma joxee cër noonu laa ko joxee cër. mais billaahi wallaahi bu yaakaaree ne làmb jii moo gën a yomb ci lambam. Mm-hmm. mu ngi nax boppam bëri naa ñu la gën a diis man mi bëri naa ñu ko gën a diis daan leen. bëri naa fekk mbër qualification chef de l'état mu ëpp ma fuuf sut ma ma yenu ko ba ci kaw dóor ci suuf. loolu ak ñoo ànd. lamb la rek. lamb la rek day wax rek nii wax ji nii fii la bu ñu tëjee barrière yi mhm. man foofu la sama xol di seet ba arbitre soufflé arrière ba na le taxaw. mel ne am na lu mu yaakaar waaw lu mu yaakaar fekk fi lu ko raw. billaahi wallaahi. Mhm. parce que jege si man nii après ñu introduire président Gora Ndo dégg nga lim lu mu lu mu wax nii dégg naa wax bu baax a baax. Mhm. waaw Sakho moom yaa xam ne xeex la. Kaolack Kaolack gars yi woo ma. na ma yàgg Batista de kawlax waaw dëkkam dëkkam ëppale ma fa dara. ndax moom samay mbokk jolof jolof ñoo koy jàppale moom moomu ko samay mbokk jolof-jolof ñoo koy jàppale déggoo li ma la wax. Kaolack moom Batista moo lay dalal. Barki Mouhamad moomul Kaolack man Kaolack laa yaroo Kanda Fodé Bayo. Double Tyson bi muy mbot Elton stade Kaolack man ma ñëw téye si Jakarta bi bi mu ko mbotee gars yi daw sooku Jakarta bi man maa téye Jakarta bi maa ko génne stade bi moom xam na li may wax bu baax. kon fii caméra yooyu ko tiim rek mu naa ne di wax nii rek. waaw na wax na bàyyi naa ko wax ji na wax. mu ne moom Kaolack. maa moom Kaolack waaw jëlal yaa moom Kaolack nee na sa ñoo koy jàppale ñoo koy may xaalis waaw kon kooku mën nañ gën a ay xaw ma double ay ay kii sama combat bi passé laa xam barki mm-hmm. mm-hmm. kii leeru alxuraanu karim am ñu may doog a ma yow Boy Sadio mm-hmm. maa ma ñi ma bëgg a dox Kaolack yow Kaolack kan moo la fa xam rek ki mujjee tëgg combat double Tyson téléphone yi bu génnee léegi ñu woo ko téléphone moo confirmé nëbbatuwuma ci li may wax. barki alxuraan mu woo ma ne ma yàgg Batista 2 ma ne ko kuy kooku. xam nga Batista nag. ma ne ko kuy kooku. mais xam nga ko mais après laa toog seetaan ñi daj ñuy rombante ci mbapat yi. benn yoon lañ ma a bokk bëre. terrain gaal gi. mais ci mbapat yi nii laa ko doon dégg. kii bëriwul ay combat ren kii bu amee trois combat ci la waxuma la muñal de kii man neuf combat laa bëri kii su ma tourné bëri ak moom kon man maa ko may chance kii trois combat arène la am man ma bëri neuf combat na lim kan ak kan la bëri fils de max Ibou Ngaabu ak kan ñett ñett ñooñu daal laa xam ñett ñooñu laa xam ñett ñooñu laa xam ñett ñooñu laa xam mooy an caatu Siteu daan Siteu numéro deux daan Serko bu jëf soo ko nekk mm-hmm. daan Edouard bu Jolof daan Valdo

ku nekk tey reconnaîtreal sa morom ay qualité am sànq tamit nga ñëw fekkaat ko mu toog ma ne la booy Sadio nii sa oto bi eng na ko eh xàmmee ma la dëmbër tooñ ko nuyu ko jox ko loxo ma nekk tamit image boo xamante ni tama faaw nit ñi magnifier ko mooy li may wax la rek ndam suñu borom moo ko moom mbër bu nekk nag am nga droit entraîner am nga droit ñaan lu fi nga yaakaar ndam waaye le dernier ni ñu ko ni ñu ko waxee wax rek la dernière décision suñu borom moo ko yor kon loolu tamit faaw mbër yi di si bàyyi xel faaw ñuy ànd tamit ak mbër yi di si bàyyi xel parce que man xam naa ne yéen ñaar bu ñu bàyyi woon rek rek rek mën ngeen signature fii ba cent ans du mos a am problème kon ñii ànd ak mbër yi de nañ ci bàyyi xel bu baax a baax baax bu amee ñoo bëgg woo laata ñoo introduire le président non sama waay la xam nga lamb moom lamb rek lay mos a doon bu ñu si di dañuy kaf ree comme waaw ko waaw comme jamais ndax moom borom baax la bu dul dara lamb nag moo laaj loolu quoi mhm. waaw ñu war a ñëw yëngal gars yi ñu jaay lamb ci après bu ñëwee bëre jeex na jeex na mhm. fii sa mag si mi nii maa moom bëri nañ après jeex sama waay la mhm. moom tamit fa bëgg a jaarale moom rek lamb moom ñun soxoruñ ñun suñu mbër ñun waaw ñun amuñu benn problème wax dëgg fa yàlla bu dajee moom dañ ko neexal mais bu duggee fii amul neex ba keroog muy jeex hmm. waaw man loolu laa xam quoi yee loo koy loo koy loo biir fii ci biir waaw fii ma sant yàlla rek fii moom lu fi xew moom yàlla xam en tout cas man leer de wóor nekk samay entraînement waaw gars yi nekk sama ginnaaw dama topp andiment mm-hmm. waaw mais maa ngi ñaan suñu borom la wóor mm-hmm. yàlla la xam mais maa ngi koy ñaan ndam baax a baax di fàttali tamit ne ne sponsor bi ñu gisagum mm-hmm. muy entreprise Darou Rahman borom ki gaw moom di kanji daan tëgg làmb ba bàyyi tëgg làmb waaye teewul tey loxoom alalam ñaqam tempsam parce que dañuy gis promoteur buy organiser sax mu ñëw taxawu la si sa loolu tamit yaakaar naa lu am solo la waaw Kandji moom dañ koy moom mu mhm. gis damay mhm. yi dugal kii bi liggéey bu baax a baax mhm. nga xam ne mi ngi siy jàpp waaw maa ngi loolu mu si gis yàlla na yàlla ful bëtam ba mu gën see jàpp affaire baax si côté bu baax a baax waaw yàlla baax na waaw na ñëpp ñëw dégg nga ko waaw looy wax mu jugee dëkk la mm. ñoo bokk dëkk mm. ñoo bokk fi ñu jugee ñëw Dakar mm. waaw TDR bi bëri naa bëri naa drapeau am mm-hmm. naa ko yàlla may ma ci ndam mm-hmm. may ñaan yàlla ni mu ñuy sponsorisé nii mm-hmm. yàlla ñu yàlla mayaat ndam lu sedd guy ci kaw ngóor si taxaw ma am ci kawam ndam lu sedd loo xam ne nii damay àndaat àndaat ak waa ETDR entreprise Darou Rahman Darou Rahman ñu ànd dem Jolof feete ju victoire bi. lu mën a xew nag nee na jour ji nag moom si biir moom du la may dara. non loolu waxi mbër la rek. nee na daal dina la fii. man man mosuma dugg ci biir enceinte bi. arbitre sifflé mbër xañ ma jàmm man damay am jàmm. Hmm. wallaahi. rendez waaw rendez bi ñu jox gars yi rendez rek. Hmm. arène nationale fii di nuyu waa président ama di nuyu jeune amateur yëpp. Hmm. waaw di nuyu waat Sénégal rek. di woowaat sama waa dëkk bu baax waa saajo aw ma lu dul waa saajo waa saajo laa am. jolof jolof yi ñoom laa am. xam nga Sadio nag li ko ëmb dafa bari parce que am na vingt cinq village yu ko wër. Gassane Thiel Taïf xam nga Euh, Afe Linguère jolof-jolof yëpp fépp fu jolof-jolof nekk maa ngi leen woo barki alxuraan ñu ñëw jàpp ci combat bi combat bi nag ñaari group ñoo ko moom ñaari groupe ak booy mafia dawalkat sareet yi bi seen combat la mafia dawalkat tamit combat bi seen combat la waaw ak sama booy jakartaay sama waa koñ mafia ku koy duxay bi xam mbay donde waaw waa Cité Mandela waa Fass Mbao Darou Salaam. jàmm gën man lamb mu bëgg. Boucar lamb la bëgg. barki alxuraan. ayca ñu introduire président kon président ah. Gora Ndoye mën nga jege si digg bi nii rek après def photo de famille bi laataa ñoo dem. Mm-hmm. avant dara dañ lay féliciter rek ni ñu koy waxee di la encourager si disponibilité bi nga amal lamb. Mm-hmm. parce que yaa ngi yor sa liggéey bu la neexoon yem si sa métier. Mm-hmm. di seetaan bu lamb ji yaa nga dem ñibbi. waaye da nga nekk si seen amateur. di liggéey di doxal. promoteur bu am bés nga ñëw taxaw si mm-hmm. yaakaar loolu tamit lu am solo loo xamante ni tey war nañ ko war a mën a magnifier dañuy félicité waat tamit si combat bi nga xamante réussir nga pour taxawal ko ginnaaw bu ñu la nuyoo bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan waaw asalaamaaleykum Boucar maa ngi lay nuyu di baax di nuyu Babacar di nuyu vraiment caméraman yi fi taxaw yëpp mm-hmm. di nuyu presse bi mm-hmm. di nuyu aussi tamit vraiment ñaari champion yi di nuyu association di ci jiital suñu père Modou Bey nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp mhm. vraiment ak bureau bi yëpp ku ci mel ni Modou Baye Fall mu ngi ñëw taxaw ak ku ci mel ni Mor Diouf mhm. vraiment Modou Baye Fall nekk commissaire au compte bi Mor mhm. Diouf nekk trésorier bi mu nekk benn association boo xamante association bu affilié la ci CNG bi am aussi ay këyit am aussi récépissé état ko ko mu nekk association bu valable yàlla dawal bi ñuy démarrer ñu ne ñu dee amateur lañu di assister làmb chaque jour. Mhm. mercredi sax boo tegee làmb ñu ñëw seetaan. Mhm. kon dafay jaaru aussi ñu créer association. biñ ko créé aussi tamit yàlla dogal boobu ba léegi vraiment ñu ngi ci liggéey bi mhm. vraiment di dox ay jéego di def social di jàppalante suñu biir mhm. ba mbeewaan mhm. demal fa koo xamante ni mooy Ibra bi doon takk deuxième femme kon loolu maanaam lamb moo ko mën mooy wane ni tey champion yi comme ni ñu leen koy waxee nañu bokk ndey bokk bàyyi ndax ñun amateurs yi dem ay mbër lañ fu xew am doon ci région yi dañuy dem ak suñu social jàppale la muy bànneex muy naxar kon loolu exemple la ci biir lamb ñuy wax na ñëpp mel noonu ñu bokk ndey bokk baay. Mhm. combat bi nag boo gisee ñu démarché ko taxawal ko. Mhm. mooy dañu ne dañu nekk ci biir mais war nañu dox ay jéego. Mhm. ndax amateur seetaan rek lañ ko xamee mu jeex mu mais jaadu na aussi ñu monter combat dagg licence. wane ni aussi ñun ñu ngi ci te am na ay yeneen projet yoo xamante ne aussi mu ngi suñu kanam. ñu ngi ciy liggéey ak bureau bi incha allah bu jotee rek. dinañ ko fésal incha allah rabi. mais di ngir am satisfaction sax parce que ay amateur ngeen waaye combat amateur ngeen taxawal nii encore. d' ki nga xam ne mooy Batista 2 aussi comme ni mu ko waxee yàgg nañ di ko bëgg a utal adversaire xëj na du woon sax Boy Sadio moo nekkoon suñu cible mhm. mais Boy Sadio bi ñu ko waxee Batista rek dafa ni loolu yéen a ko teree neex mhm. mooy wane ni ñoom ñaari mbëri aussi yombalal nañ ñu ko mhm. parce que tamit yaakaar naa mbëri yëpp ay mbëru amateur lañ kon ñoom bu ñu nangoo bëree ñun suñu combat loolu sant yàlla la vraiment ñu leen di féliciter aussi tamit di leen ñaanal le jour ji comme ni ñu ko waxee rek yàlla suñu borom defal ñu ci réussite kon ñaari mbëri nañ nañ jege vraiment beneen bi aussi mooy di remercier établissement Touba Darou Rahman hmm. muy Kandji hmm. vraiment mu nekk suñu frère comme ni ngeen ko waxee mhm. ñu gis ne ci lamb la nekkoon nekk promoteur mhm. yàlla suñu borom dogal mu dem ba nekkatul promoteur mhm. mais mu retourné jëlaat ñaxam di ko jàppale waa lamb kon moom aussi bu fekkee dafa taxaw suñu ginnaaw nañu monté leen combat moom moo ko moom ku ne xam na suñu diggante man ak moom bi ma ko wax ko kii bi dafa ne ma bu teeloon wax blouson yi dañ leen koy defaral ngeen ñëw ñëw accompagner leen parce que moom amateur la kon ñun amateur sponsors yi njëkk taxaw mhm. loolu vraiment lu ñu war a fésal la mhm. en même temps aussi tamit ñu ngi sant aussi tamit ah, ki nga xamante ni mooy Abdoulahat mhm. Touba Belel a nekk fi fii bi Pikine di koo xamante ni amateur la nekk suñu biir aussi di ñu jàppale lépp lu ñu xewle muy dëj wala muy muy ngénte hmm. dina jël alalam jàppale ñu ko en même temps nekk suñu ginnaaw fii may waxe yow ni mën naa wax ni moom moo njëkk a yëkkati xaalis jox ñu hmm. nañu monté leen combat boo suñu xaay bi nga xamante ni moo nekkoon ci suñu kees hmm. nga xam ne dafa tëddoon di nelaw rek def ñu benn activité vraiment ñu boole lépp moo waral tey ñu monté combat bi kon moom aussi Touba Pënë ñu ngi koy wax ni moom tamit ci sponsor yi la bokk mais vraiment di nuyuwaat tamit diaspora bi amateur yi diaspora bi ak ñi nekk wax ne lamb bu taaroo rek amateur la ndax amateur amul mbër rek ñëw na accompagner la xàmmeewul promoteur bu ndaw xàmmeewul promoteur bu mag moo tax bis ñu ngi leen ciy woo képp kuy promoteur li mhm. ko dalee suñu père Gaston ba ci suuf mhm. Mhm. parce que it yaakaar naa ni ku ci nekk tëgg nga làmb amateur yi accompagner la kon bis seen bés la képp kuy promoteur képp ku nekk ci làmb muy CNG muy presse bi ñu ngi leen di wax ne bés seen bés lépp lu leen ci war buñ ci xaar ñu ngi sant leen incha allah kon rek moor bu parcelle wala moor bu jàmbaar wala moor bu jeune amateur rek ah Modou Baye Fall tamit ah bi yëpp yëpp ñu leen di rek ah yàlla oyofal yéen bi kon ñu jox gars yi rendez-vous benn yoon incha allah. Jam Pro présente le combat de du ma xalaat benn góor de góor gu taxaw sama kanam xalaat naa ne bu ma la jàppee lamb ji jeex maa moom dañoo war a jëflante li ma ko waxoon laa koy waxaat ñoonu jëflante de leen laay xalaat ko ma ñëw samp ji xaat mu am nu mu demee ci côté mais nag suul ay tànkam rek ndenge ñaram bi ñemee jam-jam yi incha allah euh, lu mu indi dama koy bàyyi wax ji rek comme lu mu wax nee na dañuy jëflante maag moom nee na dinañ xeex dinañ bëri bal bi mu ngi ci ay camp xalaatam la wax rek waaye man bu ma ñëwee moom du puus du paas zambala doo def dara. dernier combat maak Mamadou Diagne dama ko dóor mu daanu te booy fay bëgguma ko dóor mu daanu dama fas yéene bëre ak moom. bagaaree dootu ko defati ba ilaa yow mi diini. bisimilah tapet nga ragal nga. barki bisimilah tapet nga. amoo fit barki maam Thierno Birahim dama lay lekk. yow ma suur sama ndey ji ma ci réew bu ñu wéetalee maa yow ma def la comme pentat.